te mu am fu mu ko sukkandiku ci constitution bi àdduna bi yëpp wërngal képp saa yu su loi bi mel nii ñëwee indi na jiixi jaaxa musul am foo xam ne fii nit yi dañuy def unanimité ci wàllu loi d'amnistie amul fenn et dëkk yëpp boo fa jaaree ñàkkoon a njëgu Afrique du Sud bay ñuy waxee Rwanda ak feneen ak feneen ak feneen ñii ànd nañu moom ñii ànd ñoo moom ñii àndul ak moom nag sax dañoo wax ni loi d'amnistie dafay violer le droit international am ñu wax ni da fay anonymiser te da fay virtuel day tax doot kenn dootul jëmmal ñi nga xamni bi ñoo def yenn ñombe yi manam lu jëm ci ay crime wala ñu wax ni da fay criminaliser ay innocents manam ko xamni ni deful ba mu nango dugg ci lo dem ni si jàpp nañ ni dañu mëna japp ni ki dafa borom ñombe la woon wala muy yok ñak mbañante ci biir askan wi wala muy téré muy indi li ñuy wax l'effet dissuasif de l'exemplarité li lepp bu dajé limu mu jur mooy fii ci Sénégal dañoo toog kiñ ko may moom mu ne moom mooy indi une loi d'amnistie ñan ñoo mën a am njariñ ci loi d'amnistie bi victime dama ciy dem rapidement dañoo wax ni manifestant yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci cas bi moom la wax les victimes victime nag boo ko indee mën nañu leen xaaj ay pàcc yu bëri victime direct victime collatérale victime direct kii dafa ñàkk bakkanam kii dafa gaañu kii dafa yàqule ñooñu ñëpp ay victime lañu et victime collatérale mooy ki nga xam ne moom jotewul ak manifestation dara tey njombe dal ko ci mu am naqar bu mu ci mën a jële damaa dégg suñu collègues yu bari tey jii ñu wax ne bu ñu fàtte les victimes ma wax ne les victimes ñun la parce que ñun ñoo xam seen i tur ñun ñoo xam seen i njaboot ñun ñoo xam seen i wayjur seen turu papa seen turu yaay seen turu jabar seen turu doom ñoo xam fi ñuy liggéeyee ñoo xam ban métier lañu ñu ñun ñoo xam seeni i

tey monsieur monsieur le président de la République mu ne loi jël initiative am moom ci boppam ñun laajuñu ko mu ne dafay indi loi d'amnistie mais man duma ko ne déedéet du ma ko ne déedéet ndax moom la ko constitution may bu ñu bëggee loi d'amnistie ba dañ ci réew mi dañuy indi fii dindi suñu code constitution ne dañ ko ciy dind kooku su boobaa kenn amatul sañ-sañu wax ci loi d'amnistie ko loolu nag mën nañ cee liggéey suñu noppee en attendant madame le ministre dafa am dañoo dire livre blanc wax ni ay coupable ñi ngi ni ñi dañoo ray nit fi taxaw nañ sax ne ñun ñoo ñun ñi dé ñun ñoo leen ray am ñu taxaw ne ñun ray ñu alkaati mo ray wala gendarme mo ray victime buñ leen joxé tour jox leen jëm ba nopi té ñu mën leen limpé xam leen ñun ñu mën leen limpé xam leen la wax bu kenn mbubboo ki tak bracelet parce que ñu jàpp ko du ngeen seeni mbokk

ku torturé ku def acte dégradant suñu question mooy ndax loi bi ni mi mëdde li ñaaw téléphone yoy ba tax né nañ jubóo day mëdd sen jëf yoy moy suñu question bu suñu xel dalé ci loolu parce que mom la njaboot yi laccé mom la mbokk yi laccé mom la mbedd mi laajte moom la avocat yi laccé mom la expert yi laccé ñenn ñi buñ ci amee tontu bu leer ànd ak yéen ci voté parce que su boba man sama xel bu léré mo voté loi bi Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Abdoumbao. Merci, euh, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur les ministres, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, l'amnistie est une modalité de régulation sociale et politique par la concertation, le dialogue, pour la formulation d'une décision collective. À l'origine, elle signifie oubli. C'est un acte public solennel et collectif par lequel les fautes d'une période sont pardonnées au nom des intérêts supérieurs de la nation à but de cohésion. C'est une pratique connue de toutes les sociétés du monde et de tous les types de régimes depuis l'Antiquité, je l'ai dit en commission. Et je rappelle que c'est en 405 avant Jésus-Christ qu'on a